alhamdulilahi rabilalamin arahmanirahim maaliki yawmi ddin salawatullahi wasalaamu ala sayidina muhammadin abdihi wa rasulih uh, asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu ginnaaw bu ñu leen nuyoo di ndokkle tamit ci weeru bu tedd weeru koor bi di ñaan yàlla mu may nu am kattanu matal ko te mu nangu di nuyu mboolem ñi nga xam nag yéen nekk tàmbale ko ci Modou Mbaw ak yéen ñi nga xam ne yéen a seq liggéey bi nekk euh, Italie ak Brescia te nga xam ne waxtu bi bu mosaan jot da ngeen di waajal 8 euh, juin bi ñu am ci mbégte boolu baax di ñaan yàlla yét yàlla euh, may nu nu fekke ko te ni ngeen ko daan defee rek te li ko taxoon a jóg ngeen di ko ca ngeen neja yàlla may na nu def ko nuñ ko nañ ko nam nam gën a rafete ak na nga xam ne noonu lañ ko lañ ci yéene muy lépp rek ngir defal lu baax di masaw itam ci coono yi ak li nga xam ne tamit mooy jamono bi ak jamono bi nga xam ne covid bi wala mbas mi mi ngi nekk ci àddina bi ba daaw ba léegi mu nekk ci te ñu ñaan yàlla yitam mu jeexal ko rawatina nag fii ci sunu réew wante rawatina tamit yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci bitim réew ndax day loo xam ne àddina bépp la soxal kon nag te yàlla rek moo ci mën a génne kon nag yàlla na ci yàlla génne euh, dindi ko ci àddina bi ba ñu nekk ci jàmm waaye bu ñu nekkee ci dàmm yit nag dellu it di ko bay di ko di ko fàttaliku xëy na damay wax ne liñ naan dellu ci yàlla man damay jàpp ne loolu sax wax bu rafet duñ ko doxe noonu duñ duñ waxe noonu di ca jóg sax moo wërul waxuma laa di ca dellu waaye nag ginnaaw loolu it dafa mel na moo am nit day dem léeg-léeg ba jàq rek soog koo soog faa soog caa dem ah kon ba tey ba tey it ba tey kon koo xam ne ba tey boo jàqee sa xel dem ci moom it ba tey loolu tamit bu mënta ñàkkit moo tane kon yàlla na nu yàlla dimbale sunu xel waxtu wu ne nu ne ca nu ne ci nu ne ci di ko di ko di ko topp bu nu seytaane fifee ba suñ xel génn ci it mu delloo suñu ca buñ ci delloo si itam sunu xel di nekk moom ba li mu digal nu di ko def euh, ndax te ku xam ne àdduna aw doxinam ak ni ma xam ne moom la taarix war wane ba mu ba léegi daanaka nii rek lay demee waxtu wu ne rek yàlla dana wane euh, yu bari am na ci àdduna bi loo xam ne ay yu mel nii rek la wala yu ko gën a métti sax doomu aadama jéggi ko jàll ca bu demee bu weesu mu. delluwaat ca lam ne woon wala lu gën a yées lam ne woon kon nag loolu kon nit la waaye daal lu mën a xew rek yàlla nu yàlla dimbale teg nu ci eh, yërmande ba nga xam ne lim nuy digal nu di ca def nu di ca nekk eh, bu loolu wéyee tamit mooy ni ngeen ko waxee rek mooy bés bi nga xam ne mooy le 8 bi nga xam ne sëñ Murtada moo ñaanoon foofu ci ñu euh, euh, ngóor gi foofu autorités yi foofu ñu def benn bésu proclamation boo xam ne bésu Cheikh Amadou Bamba la te bésu Cheikh Amadou Bamba liñ ci jublu rek mooy bésu lislaam la loolu euh, muy loo xam ne noonu la ko defee foofu def ko ci Europe yu bare muy Amérique muy feneen biir juin boobu nag ci Italie nekk loo xam ne day dafa dafa dafa dafa am moom itam lu mu firi ndax mën nañoo wax ne 8 juin ci Europe Italie googu la tàmbale fa la njëkkee eh, ndax xam ngeen ne maa ngi wax toujours foofu bu mu ñëwee ne eh, réew yi nga xam ne sax lu mel ne ay yi nga xam ne ñoo gënoon a yàgg fii mooy ay France ak yu demee noonu ba léegi yu mel noonu amu fa wante itali ci Europe kon foofu la njëkk a amee. ginnaaw bu mu amee ci Amérique bi nga xam ne moom itam mooy réew bi gën a am solo ci àdduna bi mu ci ëpp doole boobu te loolu itam mu am ko fa amin wu am solo euh, kon nag bu fekkente ne day def at bu jot mu ñëw yàlla def at yi lii tax am am yàlla am yàlla def ndokk yi am ba amul ma jàpp nañ am googu gat du ñàkk am nga xëy na mooy ñàkk dajaloo gi waaye li ko tax a jóg moom Euh, waxtu wu ne mën naa nekk te defe naa ne itam loolu ngeen noonu ngeen ko doxee mooy mm, li tax bis bi mooy bésu lislaam la bis boo xam ne da nekk ci dëkk yu jafe dëkk yoo xam ne euh, du lislaam moo fa moo fa moo fa ëpp yéen ngeen nekk fa ay gan gën faa néew ba noppi nekk fa ay gan nekk fa ci diine joo xam ne itam moo fa gën a néew ngeen bëgg ko faa feeñal ah loolu dafa nekk loo xam ne tamit du lu yomb bu yàlla defee nag ngeen def ko ci ni sëñ Touba doon doxe mooy léppam yàlla ak yonent jaral ko bakkanam yéen ngeen topp ci moom ci seen digganteeg seen borom bu ngeen ñëwee ba foofu bés boobu sëñ Mourtada wax ko autorité yooyu ñu nangal ko ko kon bés bi moom li ko wund moom moom mbooloo nekk faak ñaar ñàkk faa nekk ci yem bés bu li ci am solo rek mooy bu ñëwee ngeen mën koo euh, taxaw ngeen mën koo dundal dundal ko ko ci lislaam mooy ni ngeen daan def rek pour euh, nit nekk ca euh, dëkk ba ginnaaw mun leen a dajaloo ci Brescia ni ngeen ko daan defee euh, dëkk yi ca des yëpp it fu ngeen fa ne rek ku fa nekk rek kër gu ne rek boo fa nekkee bu dee ñaari nit ak ñetti ne ni ngeen ko daan defee kenn jàng seen alxuraan jàng seen xasaayid yi xam ne Cheikh Ahmadou Bamba moo ko defal yonent bi sallallahu alayhi ak di ci ñaan Euh, la ca deset mooy seen digganteeg seen jaamu yàlla ngeen lu mel noonu kon loolu rek moo tax bés bi jóg kon nag loolu moom dafa mel ne mu mbooloo ne ak mbooloo bañ faa nekk ñoo ci yem ndax maanaam moom du fa jóg mooy la ko symboliser moom du jóg foofu kon nag ginnaaw da ngeen koy def yàlla ngeen xam ne liggéey boobu moom euh, liggéey la boo xam ne yéen la ko lislaam yéen la ko yéen ko moom yéen a ko moom ndax tamit damay wax ne xëy na sëñ Mourtala moo ko ñaan autorité yi waaye bu fekkonte ne tamit du yéen du ko def ndax màggal gaag wane gaag ak feeñal ga am na noo xam ne su ngeen ko doxe woon du ngeen ko mën ndax am na jikko yoo xam ne walla doxin yoo xam ne su ngeen ko doxe woon yu mel noonu bu ngeen ko fa bëggee defit dana du du mën a du mën a nekk kon xëy na sëñ bi tamit xam na ni eh, lool rek la woon waaye du woon pour boppam du woon pour njabootam du woon keneen lislaam a ko taxaw na jóg te lislaam bi yéen a ko fa nekkal yéen fa nekkal lislaam kon bés bi moom seen bés la bésu lislaam bi yëpp la na ngeen ko daan feeñale ngeen feeñale ko ànd ak def ci defin yu yoo xam ne duñ leen yab duñ leen yab ci seen doxin duñ leen yab seen jëfin duñ leen yabit ci na ngeen di sëq ak ñoom noonu ñu daan defit ñu di bàyyi xel bu jotee ñu dem ci autorités yi yëgal leen ko euh, autorités yi nga xam mooy wàllu aada yi ak ñi nga xam ne sax ñooy autorités yi nga xam ne ñooy àll wàllu seen diine yi ndax tamit gis ngeen nañu daan def bu ñëwee dañuy dem ci barab yi nga xam ne yëpp ndax ñoom it euh, ay nit yi ay nit yi lu mel ne ña fa nekk ci seen diine donte bokkuñoo ñoom ak diine itam saa ñu nekk buñ ñëwee lu ñuy ñëw dañ cey ñëw di teewe ànd kooku ñun te ñoom moom seenum réew kon nag nu itam bu ñu fa def dara itam ngeen ànd ngeen yëgal leen ko won leen ne leen li ko tax a jóg rek eh, lu baax rek la bu ko defee te it xam nañ ko nag ndax loolu at bu moom lañ ko daan defee waaye bu leen ko bàyyi ngeen di ko feddali ngeen dem ci autorités yi nga xam ne ñooy wàllu eh, eh, administratif bi ak ñi nga xam ne tamit mooy religieuse yi yëpp ngeen dem ci ak. Euh, dëkkandoo ya nga xam ne itam ñoo fa nekk ak ñi nga xam ne yëpp yéen a bokk ci te nekk ci ci réew ma loolu ngeen bokk ko ak ñoom ñu xam ne li ngeen di def du lu ngeen di làq du loo xam ne te xam tax a jóg mooy lu yàq loolu rek lañ ci lañ xam ne kon mooy mooy doxin bi kon mbir mi daal amul lu ci ci war a def lu dul xam ne bis bi li ko tax a jóg lu baax rek la te euh, waxtu wu ne dafa dañ ko war a taxawal. defe naa ne ni mu amee Brescia tamit la amee ci yeneen dëkk yi mooy ay Rimini ak euh, ak Damtona Sardegna fu la ci yi ak dëkk yi nga xam ne yooyu yëpp am nañu bés yu mel noonu ñu gën koo gën koo dëgëral kon naa daje gi mënatu la am mbooloo ma mënatu la am ngeen xam ne li am solo ci yëf yi du mbooloo ma li am solo ci yëf mooy jëf ji ak defin wi ak fàttaliku ko loolu ndax biir la ca biir mooy la ci am solo. te loola mooy lii tax ngeen di ko def ni di ko bàyyi xel ndax jàppoon nañ ne fi jamono ju tollu du ngeen xalaat mukk di jéem ci loolu waaye gis nañ ne dafa dafa dafa dafa dafa leen yokk mu mel nekkoon kon li ko taxoon a jëkk ak li tax ñu war koo def kon yéen xam ngeen ko ba tax na loola rek te lool rek moo ci am solo kon nag ñu ngi leen ci ñaanal yàlla mu def ci def ko ci jàmm yàlla may na nu di ko fekke fekke ko ngeen xam ne tamit fii tamit Euh, danañ ko bàyyi xel ndax bisu diine la bisu sëñ Tuuba la bisu sëñ Tuuba mooy bisu yàlla ak yonent bi rek la te loolu rek mooy at moo jar ci àddina moo ci jar sonn euh, kon daal daanaka rek li ci am solo mooy loolu ñu ngi nuyu nag kilifa yi fa nekk yëpp dañuy bañ a di def par ay benn wante ñëpp la ndax mbooloo moom ñëpp la ñi ci réew mi ñëpp ñooy ñooy ñooy ñoo ko bokk euh, kon nag fu ci nit nekk rek bu bis yooyu jotee. bu doon waxtu sax nga tax nga nga fàttaliku ko def ci loo xam ne lu dëppoo ak li nga xam ne moo ko taxoon a jóg loolu lañ ciy wax kon ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant salaam hmm, loolu mooy euh, loolu ñu ci junj mooy mooy ànd gi ak dimbalante gi ak it xam nañ ne Eh, am na ñoo xam ne sax ba léegi ñu ngi fii am na ñoo xam ne foofu itam jamono ji metti na fa lool waa liggéeyuñu ña ca doon jaay mënatuñoo jaay ña doon liggéey seen liggéey yenn ñi dem na te mënatuñ faa jóge noonu eh, ginnaaw bu ñu leen ñaane buñ ñu loolu tamit lépp képp ku ci tane sa moroom rek ak lu mu tuuti tuuti nga dimbale ko ci même ñi nga xam ne sax dañoo nekk fii ñu nekk fii sax ci Sénégal te am fa ay bokk yoo xam ne bañ daan am ñi ngi leen di seq ak ñoom teraanga ñoom itam bu ñu nekkee fii bu ñu leen kii ndax jamono jën neexul foofu leen defee nag fa nekk am na ñu fa nekk ñoo xam ne tey eh, bu ngeen leen doon dimbale da cay baax lool. ndax tamit koo xam ne la muy lu ko tax a yëkkate lépp mooy lu lu teraanga ak lu mu dundee ak lu mu defal njabootam. te loolu lépp bu amee teewul la bëgg ci lu bëgg ca lu baax mu di ko ca def ndax ku fa nekk ba noppi te yow jàpp nga ne la ngay def te yëngatu ci sa wàllu diine sax da ngay dem ba jàpp ne kii ndax dana ci boole leneen sax ku mel noonu nag tamit euh, yéen ñi nekk fii tamit ngeen di leen bàyyi xel euh, te di leen xamal jàmp ne ngeen di leen xaw a ñeewante tuuti ndax lañ mënoon mënatuñ ko lañ daan def mënatuñ ko def euh, lañuy def ne jom rek la ak ngëm waaye mënatuñ ci lu am solo kon tamit loolu yi tamit ñu bàyyi ko xel. waaye nag teewul yéen ñi ci biir foofu daan na ngeen jàppalante lu ci nit man manal moroom ji rek na ko def ndax loolu tamit am na ci solo lool kon nag yàlla leen yàlla dolli ay xéewal yàlla leen yàlla sàmm te dindi fi li xam ne mooy li fi am yàlla génne ko fi yàlla jeexal ko ñu ngi leen nuyu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu وقل بكاء على سادات الأموات mustafa